parce que li ñu bëgg ci jàmm la xaj réew mi dañ fi war a jëmbat jàmm ndax bu meññee suñu kaw rek lay ñëw keneen ku fi bëgg jëmbat safaan rekk na yem ci yow moo tax ñi naan par dañuy dem euh, ville de Dakar dañoo juum ndax du force rek damay dem ville de Dakar yoon yi dafa bari réew mi réewu yoon la te yoon yi daa bari ku ne par force damay dem ville de Dakar da nga taseeg sa doomu bàjjan kon nañu jëmbat jàmm ci réew mi te xam na bi moññee jàmm ji ñëw suñu kaw lay sotteeku maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan nag waa marché bi yëpp nañu voté list bennoo Bokk Yaakaar bi nga xam ne commune Sicap Liberté man maa ko jiite ville de Dakar le ministre Ablaye Diouf Sarr moo ko jiite ndax fii lépp lu ma fi fas yéene def benn na ngeen xam ne Ablaye jur Sarr fas yéene na fi def fukk kon nañu jàpp ci mbir yi leneen li si des mooy nañu teel a xëy bu ñu kenn xoqatal réew mi jàmm ak salaam a fi am dimanche balaa 7 heures du matin nañu jóg dox nànk ci bureau yi soxlawul ñuy sol dara luy màndargal ki ñu àndal bu ñu demee ba ci biir bureau de vote yi tànn bulletin bu chocolat bi am bopp fas yi dugal ko ci urne bi te xam ne ku ko ci def yaa ngi suuxat jàmm yaa ngi jëmbat jàmm maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen